Bonjour à tous. D'abord, remercions Allah de nous avoir donné la force de nous adresser à vous, chers auditeurs, en cette fin d'année plus que difficile. Dire que l'an 2020 a été une année difficile, c'est verser dans la tautologie. Nous avons tous ressenti les effets dévastateurs du coronavirus au triple plan, économique, relationnel et affectif. Nos pensées vont à tous ceux qui ont perdu un parent, un proche parent, un ami, un camarade, un compagnon, victime de la Covid-19. Le groupe sur Communication a été vivement ébranlé par la disparition de son président directeur général Babacar Touré et bien au-delà de Sud, l'ensemble de notre grande famille qu'est la presse. que le Tout-Puissant lui accorde les bienfaits du paradis. Vous êtes, vous avez été nombreux à nous soutenir et partager avec nous cette tristesse qui continue de nous affliger. C'est aussi l'occasion pour nous de souhaiter longue vie et bonne santé à notre doyen Abdoulaye Ndiaga Sylla à Vieux Savané et à l'ensemble du groupe Sudcom. Nos pieuses pensées à celles et ceux qui nous ont quittés. L'année a été plus que difficile, mais une fois encore, grâce à Dieu, nous l'avons surmontée avec l'accompagnement de nos annonceurs et sponsors, en plus de la confiance et de l'amour que vous nous témoignez tous les jours, qui sont autant de stimulants qui nous à aller de l'avant et d'être toujours à votre service pour vous informer dans le respect des règles, des lois et chartes qui gouvernent notre profession. Nous poursuivons nos efforts pour vous garantir davantage de confort d'écoute dans les meilleurs standards. La numérisation nous est acquise. Nous évoluons vers la digitalisation totale puisque la radio ne s'écoute plus seulement, elle se regarde via Internet. Les jours à venir vous édifieront sur l'attention que nous vous portons. le maillage du territoire continue son chemin ainsi que le renouvellement du matériel technique en région. Mais il n'y a pas que l'aspect technique et le nouveau design sonore qui vous seront proposés. Le contenu de nos émissions sera enrichi par des débats politiques, des chroniques et un clin d'œil aux enfants. Permettez-moi de remercier tout le personnel de la radio pour leur soutien leur abnégation et leur dévouement à la tâche. Il est entendu que ces encouragements vont aussi à l'endroit de nos correspondants régionaux et à l'étranger sous la conduite de la rédactrice en chef Ndeye Marième Ndiaye et toute l'équipe qui œuvre à ses côtés. La direction commerciale est à féliciter ainsi que toute l'administration. Covid-19 nous a montré que nous sommes une organisation soudée et professionnelle. Je me dois de féliciter le desk religieux. Un grand bravo à Oustaz Sall et son équipe, Oustaz Mbaye, Oustaz Seck, Oustaz Mbacké Silla, sous l'impulsion de El Hadj Maodo Faye. Oui, la fonction d'une radio, c'est l'information, l'éducation. À ce titre, le religieux remplit bien sa mission. Idem pour le desk chrétien, qui tous les dimanches et jours de fête éclaire les fidèles et renforce leur foi. Une radio, c'est également le divertissement. Les animateurs ont aussi de leur côté bien tenu le micro. Aziz Koulibaly, Sidi Gueye, Didier Nicolas, l'animation continue d'être au top. Clin à Maria qui est venue nous rejoindre cette année. Je termine en remerciant ma famille, mon épouse pour le soutien et l'accompagnement sans cesse un clin d'œil à mon fils, son neveu, à toute la famille. Bonne et heureuse année à tous nos auditeurs qui continuent à nous être fidèles. Que l'année 2021 leur apporte une bonne santé et plein succès dans leur entreprise. Deweneti, que 2021 chasse définitivement la pandémie. gannaaw bañ leen nuyoo ku nekk ci turam ak santam ñu tàmmali di gërëm yàlla suñu borom sant ko bu baax a baax ba mu ñu mayee ñu dund atum deux mille vingt di at boo xamante ne at bu metti la ndax li nga xamante ne mooy jàngoro Covid dix neuf la mel ni àdduna ñi nga xamante ne ñoom ñoo ci gaañu doon ñoo xamante ne am na ñu ñu jege lool wante ñi ci maanaam faatu yëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla xare leen àjjana. atum deux mille vingt nag si la ñu ñàkk suñu président muy Babacar ture mu doon ñàkk bu metti lool ñu koy ñaanal yàlla xare ko àjjana. suuf oyof si kawam jéggal ko ay bàkkaaram ñaan njabootam tamit yàlla teg si loxo may leen xolu muñ ñu ngi ñaanal ñi nga xamante ne ñoo bokkoon liggéey bi te yàlla jëlee leen fii eh, di remercier ñi nga xamante ne mooy suñu annonceurs yi ak sponsors yi nga xamante ne dañu jàpp si liggéey bi bàyyiwuñu benn yoon ndax atum 2020 metti woon na lool ndax covid bi impacté na lool si doxalinu entreprise yi wante ñu ngi gërëm yàlla suñu borom ba mu ñu permettre dàquñu ci kenn wàññiwuñ ci kenn te fay nañu salaire yi weer yépp ñu ngi koy gërëmee yàlla suñu borom kenn mënul ku dul moom. liggéeykat itam kenn demul ñi des ku ci nekk li nga mën def nga ko. ku ci nekk fi nga jàpp yaa ngi fa jàpp. bi ñu amee réunion dégg naa ku ci nekk li nga wax di wax ñi nekk ci région yi tamit muy correspondant yi. di wax ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk extérieur muy suñu correspondant à l'étranger yi ku si nekk ñu ngi lay gërëm di la sant ku si nekk dégg nañu sa li nga xamante ne moom mooy sa engagement ku si nekk wax na li nga xamante ne mooy bëgg-bëggam wante tamit li nga xamante ne mën nañ ko jàpp mooy ne liggéey bi day wéy di continuer ndax rajo production la moo tax ku si nekk waxtaan nañu ak moom te gëm naa na fi ñuy dem yàlla dinañu jàppale ñu egg fa si jàmm ak salaam matériel bi gis nañ ne mi ngi yem gis nañ ne tamit li nga xamante ne moom mooy mayage du territoire ñu ngi si te li si des bareetul dara ñàkkul ne bu ñuy gën a dem mbir mi di gën a yomb loolu ñu naan digitalisation numérisation yooyu yëpp gis nañ ne yem na te gis nañ ne yàlla jàppale nañu ba loolu yàlla maanaam def na ba ñu réaliser ko wante dafa am loo xamante ne tamit il faut ñu ñëw si mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy nekk si micro bi bés bu nekk te rédaction bi nga xamante ne Ndeye Marème Ndiaye moo ko dirigé jot nañu encouragé leen jot na tamit euh, ñu wéyal liggéey bi ndaxte ñu ngi koy def si ba mucc ay ba askan bi écho yu ñuy jot yëpp mu doon écho yu favorable moom laa wax si correspondant régionaux yi ñi nga xamante ne ñoo yor desk religieux bi tamit kenn demul ñu des ñu ngi koy def di éduquer di informer di yar nit ñi te loolu tamit gis nañ Sénégal daal nit yi kontaan nañ si moo tax sax ma taxaw gërëm ki nga xamante ne mooy oustaz Alioune Sall ak équipe bi nga xamante ne moom la àndal di oustaz Seck di oustaz Mbacke Sylla di eh, ki nga xamante ne mooy oustaz mbay ñoom ñëpp ñu ànd bokk ndey bokk baay di ko liggéey si liggéey bu mucc ayib maanaam chrétien bi nga xamante ne ñoom chaque dimanche ak li nga xamante ne mooy événement religieux yëpp jëm si seen wàll ñoom tam ñu ngi koy liggéey liggéey bu mucc ayib te ñoom seen wàllu bopp sax ñu ngi gën a yee si seen religion te loolu tamit gis naa ne écho yi rafet na lool te maa ngi leen di encourager ñoom ñi nga xamante ne ñoo yoon liggéey boobule. di animateurs yi ñoom liggéey nañu liggéey boo xamante ne tamit loolu am na solo lool ndax micro bi ñu ngi koy tenir si tenir ci euh, di ko tenir bu am solo boo xamante ne. nit ñi fu mu nekk ni kontaan nañu muy ki nga xamante ne mooy DJ Aziz DJ Nico DJ Sidi Gueye Maria bi mu ba mu ñëwee yàggul maanaam nekk ci équipe bi ñoom ñëpp ñu ngi liggéey liggéey bu mucc ayib te bi tamit topp nañ leen topp boo xamante ne loolu dafa méngoo ak ligne éditoriale u rajo bi loolu nag dafa am gannaaw ba nga xamante ne Covid 19 bi dund nañ ko. mu am période boo xamante ne am na télétravail mais ñu adapté suñu liggéey muy wane rek ne sud du entreprise bu ndaw entreprise bu mag la te gis nañ ko bi Covid 19 bi ñëwee ñëpp ànd nañu bokk ndey bokk baay liggéey ko ci liggéey bu mucc ayib ñu ngi ci internet bi ñu ngi koy liggéey wante li ñuy gën a dem liggéey bi di gën a am solo. dinañ gën a yokk li nga xamante ne mooy infrastructure yi ndaxte fu mu nekk nii juge nañu analogie ñëw si numérique bi ñu ngi dem si digitalisation boo xamante ne incha allah deux mille vingt ans dinañ ko eggal. lii nga xamante ne mooy maillage yi gox-goxaan yi nga xamante ne Sud FM am nañ fa tuuti jafe-jafe ñàkkul ne dinañ ko yeggali ndax matériel bi yëpp euh, mët na li des kañ mooy avion yi nga xamante ne mënuñu indi matériel bi wante suñuy li ñuy gën a avancé mbir bi dina gën a yem loolu nag dafay wane rek ne loolu liggéey la liggéey boo xamante ni ñëpp soobu nañ si soobu boo xamante ne ñëpp nangu nañu ne jot na pour ñu bokk ndey bokk baay pour jëmale liggéey bi si kanam moo tax may gërëm auditeurs yi nga xamante ne bàyyiwuñu benn yoon muy euh, ñi nga xamante ne mooy amicale des auditeurs de Sud FM takku ànd ak ñun di ñu jàppale maa ngi leen di gërëm di gërëm auditeurs yëpp fu ñu nekk ku si nekk si turam ak santam si bëgg-bëgg bi ñu bëgg Sud FM ànd ak Sud FM te loolu gis nañu lu rafet la. di gërëm ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Ndiaga Sylla di suñu doyen di ànd ak ñun bés bu nekk vieux Savané ak ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy magu sud di ànd ak ñun si liggéey bi di ñu xalaatal à Sud FM Sud FM askan bi la askan bi wane na ko moo tax ñun duñu tàyyi di bés bu nekk bu ñu yeewoo di seet lan mooy pexe yi nga xamante ne ak liggéey yi nga xamante ne dina gëm a jëbal rajo bi si kanam di gërëm suñu njaboot yi nga xamante ne ñoo ànd ak ñun sama soxna bi nga xamante ne ñu ngi may jàppale sama doom sama neveu yi nga xamante ne kenn bàyyiwuma ñu ngi may jàppale si liggéey bi sama famille daal de façon large maa ngi leen gërëm di leen sant di gërëm ñi nga xamante ne ñooy travailleurs yi ak seen jëkkër di gërëm service commercial bi di gërëm administration bi yépp di gërëm rédaction bi di gërëm ñi nga xamante ne ñoo yor accueil bi di Moustapha Ciss ñi nga xamante ne ñoo yor oto yi chauffeur yi ñëpp ñi nga xamante ne dugal nañ seen loxo ci liggéey bi maa ngi leen di gërëm di leen sant pour wax rek ne 2021 yàlla nañu yàlla dimbali may ñu sutura jàppale ñu ba ñu fa fi ñu bëgg yóbbu rajo bi ñu ngi fax jàmm ak salaam maa ngi gërëm ñëpp di souhaiter ñëpp meilleurs vœux pour mille vingt 2021 déwénati